seen soppe Mame Balla Faye moo amati mbégte di dellusiwaat ak yéen ci téere bi ñu tudde Qurratul Ayni Qurratul Ayni di téere Sëriñ Chouaïbou Mbàkke ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul radiallahu anhu muy téere bu fees dell ak ngëneeli àddina ak alaaxira di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu fayal ñu Sëriñ Chouaïbou Mbàkke lu kowe njortam mook njabootu sëriñ tuubaa gi yépp ak ñun taalibe yi yépp ak julliti yépp bismillah bismillahi laa ilaha illa laa ilaha illa yàlla sunu borom bi moom rekk moo di buur nguuram gi digaalewu ko kenn lu ko neex mu am lu ko neexul du am kenn du ko dimbali ci dara lu am moo ko amal lu ñàkk moo ko ñàkkal du diisoo kenn du tàggu kenn coobareem rekk lay jëfe ci lu ak kàttanu boppam ak xam-xamu boppam ak sañ-sañu boppam aajoowul jëm ci kenn te ku ne aajoo nga jëm ci moom mi ngi dund dund gu tàmbalewul fenn yamul fenn dana dégg dana gis dana wax waaye yooyu yépp nirolewu ko mbindeef daraam niroowul ak daraay mbindeef lépp lu nit mën xalam ci am xelam walla mu melal ko ci am xelam walla ci aw làmmiñam daraay sunu boroom niroowul ak loolu jurul kenn kenn juru ko kenn du mbokkam ku nekk ab jaamam nga lu waay baax-baax as njamam rekk nga xam na lu ne umpalewul dara teewe na lu ne wuutewul dara lu waay wéet wéet mi ngi fi yow te loo def gis na ko xam na ko bind na ko te du ko fàtte te dana la ko fayit loo waxit noonu lu nit bari bari ak seeni coow kenn ku nekk xam na la nekk ci sam xel te kenn ku ne danga mësa a ak moom ba defe ne yow rekk la bind moonu amal ba nu amagul moo nuy dundal bi nu amee te dinu wërsëkal moo nuy rey moo nuy dekkal ci lu dul sikk gannaaw bu mu nu dekkalee itam dana nu dajale ci benn bés ci benn barab di woo kenn kenn ku ne mu seet la nga daa def bu dee lu baax mu faye la ko àjjana nga tàbbi ca te dootoo ca génn mukk bu dee lu bon mu faye ko ko sawara mu tàbbi ca te dootu ca génn mukk te kenn du ko mën a faj kenn ku ne sa bopp ngay tal mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di tàggu foofu di leen ñaanal tey sàkku ñaan di ñaan suñu boroom subhaanahu mu defal nu dégg ak topp bu mu gërëm di leen yëgal it ne képp ku bëgg a jàng alxuraan ci riwaaya warsh wala xafs wala xaside yi ak niveau boo mën a am mën nga jokkook man ci numéro whatsapp bi wala email bi اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته